xii ni mii nii ngir nag tànn kii jiite assemblée nationale waaye nag journal bi nee na assemblée am na ñaar ñoo ne maanaam ñoom la ñu ëpp lu ñu tudd seen tur te ñoo gën a jege ngir jiite assemblée nationale kenn ki Amadou Ba lay wuyu kenn ki Aminata Touré lay wuyu moom Mimi Touré mi nga xam ne moo jiite woon liste benn bokk yaakaar yéen a kaay gi di réew mi ko di cee nee na Macky Sall bu weesoo kan mooy jiite assemblée nationale am na ay xii ni ci kan lay nommé a ñoo ngi koy tudd ay yooni yooni yoon moom Amadou Hott waaye tamit ki ñuy wax Aminata ñaan di ab technocrate nekk conseillère ci banque africaine de développement aw turam tamit lañ koy tudd bari na lool lool moom Aminata Niane waaye tamit ku ñuy wax Omar Demba Ba moom tim nekk premier conseiller diplomatique Macky Sall diggante 2000 ba 2012 moom Omar Demba Ba jege woon na lool ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Wade moo tax Omar Demba Ba moomee ngir nag mu jiite gouvernement bi nekk premier ministre aw turam la ñu koy tudd bari na yéen a gi di réew mi ko Quotidien xëy nag tënk kàddu yépp nee na ak soppar ñii ko bu amul sa mujjantal ga en tout cas juróom ñii ñu leen tuddal kenn dina ci jiite assemblée nationale kenn dina ci nekk premier ministre yéene kaay gi de la témoin ñu xëy fekk fa docteur Momar Thiam xelam màcc jëm ci wàllum communication nee na réewum Sénégal lenn rek moo ko mën a sauver fii ba 2024 mooy a premier ministre boo xam ne ak déggoo daf cay am ab premier ministre consensuel loolee mooy mën a sauver li nga xam ne mooy Sénégal fii ba 2024 kàddu docteur Momar Thiam la yéen kaay gii di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu Aminata Touré naam am na ñu koy tudd ngir mu jiite assemblée nationale waaye nag am na ay lees waxul moom Aminata Touré ndax nag xam ngeen ne assemblée nationale bii waa PDS ñu ci bëri loola te nag ki nga xam ne mooy Aminata Touré ak PDS ñoom duñu laale mbiri Karim Wade fàtte xaju fi mbiri kër yi yéen kaay gi ñu xëy fekk fa docteur Abdourahmane Diouf bokk ci aar Sénégal ñoom Thierno Alassane Sall ñoom nag ñoo ngi woo opposition bi yëpp ngir ñu daal di booloo ngir nag mën a li xam ne mooy assemblée nationale Abdourahmane Diouf nee na kàddu yi woon na ko wax ne bu passé ñëpp Macky Sall la ñu liggéeya la Abdourahmane na loolee yàqal na leen lu bare bare bari waaye nag amul problème nañu fexe daal ba booloo ñun opposition bi yëpp ngir nag mën a contrôler assemblée nationale yéen a kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Moustapha Diagne Macky 2012 wala nga ne Benno Bokk Yaakaar moom nag nee na résultat xam ne Benno am na ko ci élection législative yi loole nag ci bopp mooy imposé Macky Sall ngir nag mu xoolaat ñi nga xam xam ne ñoo koy gunge ci lu jëm ci wàllum politique yéen kaay gi di source nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom Déthié Fall Ousmane Sonko Khalifa Sall nee na ñu woon danañu déposé ab recours ca conseil constitutionnel waaye nag ba léegi ni daal déposé wuñ ko yéen kaay gi nag nee na tey jii si àllarba ji la délai bu mujj bi yéen kaay gi di vox populaire xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall am na sens Macky Sall am na sens ci yi nga xam ne moom la ñu génn ndax ñi nga xam ne ñooy waa monde rural bi ñu dëkk ci kaw gi ñooñee ñoo sauvé Macky Sall waaye ville yëpp Macky Sall daf koo ñàkk ville yi yi ville yi dañ faa dóor Macky Sall ba maara day taale yéen kaay gi di 24 ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekkee nee na au conseil des collectivités territoriales la boo xam ne amul benn njariñ te ay milliards yu bare bare lañu fay dugala clientèle politique loolee rek moo ko tax a jóg te nag ñi nga xam ne ñooy famille Faye Sall ñooñu la fa Macky Sall bëgg dugala kaddu yi Mamadou Lamine Diallo la nee li nga xam ne mooy au conseil des collectivités a def yéen kaay gi collectivité territoriale bi nga xam ne ñoom jàpp nañ amul njariñ ñu bañ ko fee indiwaat ba pare tamit di sàkku bilan bi nga xamante ni ñoom jot nañ ko fee defa yéene kaay gi di 24 heures nee na Guy Marius Sagna commencé liggéeyu député ndax nag étudiant sénégalais yi nga xam ne dañu leen a bloqué fii ci réew mi te lépp ambassade bu France bi nekk Sénégal moo ko waral ndax étudiant sénégalais yi au lieu que ñu jox leen seen visa yi ngir nag ñu mën a dem nee na tëjug hôpital Dantec fukki fan ak juróom ci weeru uta jur na coow lu bare bare bari ndax ñi nga xam ne ñuy liggéeykat yi ne ko hôpital Dantec ñoom mer nañ ba maara day taale ndax nee nañu hôpital bii nga xam ne dañu ko bëgg a tëj xaw ma naan dañu koy tabaxaata loolee njombe gu mag a mag a mag mën na koo jur ndax nag dina bëri ay rendez-vous yoo xam ne dañu koy fausser dañu koy annuler te dina bëri ay malade ñu feebar ñoo xam ne ñu leen génn ci biir hôpital bi sànni leen ca mbedd ma te loole nag bokkul ci sàmm ak yelleefu doomu aadama liggéeykat yi nee nañu loolee sax maanaam yëfu criminel la te amul benn plan boo xamante ni daal maanaam ministère bi teg na ko ngir nag buy tabaxaat hôpital boobee mën a jël maladi yi yóbbu leen fa laas yéen a gisuma lolo waa ministère bi ñoom nee nañu kenn du ñàkk liggéeyam ci tabaxaat bi nga xam ne moom la ñuy tabaxaat hôpital bi te ñun jël nañu suñuy matukaay lépp danañu ko déployer yóbbu ko ci yeneen service yéen a kaay gii di li ko di jee liggéeykati hôpital Dantec ñoom nag nee nañu état bu Sénégal daal parax parax ji nga xamante ni moom la nekkee lenn warul amu ko lu dul nag ñetti hectares yi nga xam ne bëgg na koo dagg daal di koy jaay maanaam ñetti hectares la état bi tabax jël ñetti hectares daal di koy jaay yéen a kaay gi di réew mi ko di jeexee du ñu xibaar naan ñu njombe am na ndax dafa am benn agent boo xam ne Dakar dem di këlay liggéeye moom nag dafa rey doomam daf koo dóor ba doom ji mujjee ñàkk ba kanama ndax dafa jàppoone onze mille francs doomam moo ko ngar daa jox yéen a kaay gi di sunu lamb xëy di ñu xibaar naan ñu Balla Gaye numéro mooy bi ëpp ay victoire ci lamb je ndax Bombardier ak Modou Lo am nañu vingt victoire